bu mag lañ yor quand mu gagné élection yu bari ñàkk élection bii nii ak coalition Benno Bokk Yaakaar mu am euh, doxalin boo xam ne bu bees la ci biir réew mi maanaam mu laaj ci ay ay ay ndaw mu laaj ci ay jigéen mu laaj ci leneen ak leneen loolu nag waxtaan la boo xam ne duma ci mën a sori duma ci mën a xuut ndax ci parti lañ ma bokk ñu am directoire mu am secrétariat ma bokk ci waxtaan boobu bu demee ba ñu tënk ko ci biir secrétariat danañ ko mën a wasaare ñëpp jot ci ñi xam ne nii lañ bëgg doxalee suñu parti ëllëg ak ci président Macky Sall ci ay xalaatam bu demee ba doxal lu mel noonu euh, euh, incha allah danañ ko mën a danañ ci danañ ci mën a addu wax ne nii ak nii le mais pour le moment lu mu digle mooy nañu waxtaan ak nit ñi nañuy dellu ci base bi wax ak nit ñi. bu demee nag ba secrétariat am mu am leneen loo xam ne xalaat na ko pour lépp luy doxal parti bi su boobaa aussi incha allah danañ ko teg ci seen loxo ngeen mun ko wesaare ci ci biir réew mi.